ñuy def kii bi non non mais mais xamul tax ñun lay difficile bu ñu toogee di la déglu nga jël sa temps di développer c'est parce que vraiment ñun ñu on est parce que li nga nekk di wax ni quand même quand même sax li ma bàyyi li ma xaar accident xam nga réew dafa may jinne am ay malaaka am yàlla am comportement ñu dëkk ci dëkk ba am ñu toog ci dëkk ba ni ñoom dëkk bi daa war a tàkk ay nit di dee façon bu ne la nit di dee kon mu neen dee ci affrontement mu neen dee ci accident oto ndax dañuy tuutal dee taal rayante mortal combat donc langage bi moo balaa mu ci làmmiñ yi ñoom man de dama juddoo ba léegi dégg boo dara bu ko tudd boo bëggee jàmm rek ñoom seen jéem day donc gis naa indiscipline bi am ma di ko joxe loolu laa bëgg il faut souplesse temps est différé parce que bu ñu différé ñu a dee fii ak un an bi ah boobu différé da ko indi kon en conclusion. Eh aywa Sénégal nañu bëgg suñu bopp gis nga passagers yi seen bopp ñoo gën a yéene accident yi ñooy nangu surcharge bi kon la bateau la Joola bi dafa triplé ni mu waroon oto bi bus dem mel lu ñëw. passager yi ñoo fa ñooy def football. waaw ok parce que. dañ jàng maître non nul ne peut se prévaloir de sa propre tribu. non maître nit ki warul def loo xam ndox la ci. non non mais maître boobu ani état. non non non non non non non non non Voilà, moi je quitte non, 3000 personnes ne non non il y a une responsabilité partagée je reste pas dans ce plateau là les passagers sont euh, Guy, euh, like les vidéo bien likez like vidéo bi ah. du mais comme moi comme moi likez ah. like vidéo like vidéo bi Eh, kañ dem xooli sax sama copain Kësa nañ dem déglu ko ñëwaat. waaw gars yi Samba Ka foog naa ne ñun ñëpp yëg ngeen li mu def dañ koo jàpp fële ca Linguère mu doon cambriolé maanaam doon waaj a sàcc ci benn bitik bu nekk Linguère devant prix euh, bi devant enquêteurs yi bi ñu ko yóbbee xam Samba Ka lii la wax bàyyi ma liiral leen ko ci français pare tekki leen ko ci wolof parce que nekkul ñëpp ñoo ñoo dégg français Samba Ka nee na Samba Ka devant les enquêtes je suis toujours sollicité par mes parents les jours. Il m'appelle au téléphone. Il pense que je suis devenu riche. Je suis devenu célèbre, mais l'argent ne suit pas. J'avais cambriolé pour régler des besoins. xoolal loolu rek Sambaka nee le fait que Moussi, siiw waajuram parents chaque jour lañ me au au téléphone mbokkam chaque jour nous koy parce que dañoo jàpp ni le fait que mu am tout, rek am na xaalis chaque jour nous, ko doon woo ñëpp dañoo foogoon ni me lépp alors que tel n'était pas le cas Muni, ni daf doon juste pour régler yenn problème yi am ci aduna gis nga li xama ban jangat lañ ci lañ ci wara mëna am li li cion euh, sek do way nan siw du jami borom wax bobu mi ngi sogo ñew bari na ay nit yo xamanteni yeen ngi leen di gis ci écran yi am nañ tour peut-être mais gaay ñu bari liggéey du ñepp nak réseau yi du liggéey té am na ño xamanteni buñ commencé am tok tour rek dañuy bañ yenn liggéey wala ñu naan yenn yi duñ ko def parce que nit yi dañ leen di xamé lutax lo tour du mbir mi ay abonné ay vues du mbir mi xaalis nit ki da ngay liggéey xool nooy defaree sa suba ay trop ay siiw yi nii loolu xool mbir bu éphémère la nekkul luy continuer éternellement bu doon siiw dong la kon Youssou Ndour du tijji ay entreprise bu doon siiw dong la Wally Seck du ubbi ay entreprise donc il faut être intelligent suma gars yi Samba kat lii kenn yéenewu ko ko mais bon parfois pression sociale moo lay yóbbee yenn yi. li li liñ koy ñaanal xanaa ñi mu doon cambriolé xanaa ñu jéem a dawal compréhension rek jëm ko baal xam ne àdduna mu ko jàpp mais gars yi siiw di jàmbi borom. maa leen di xaar ci commentaire yi ñu waxtaan ngeen wax ma yéen naka ngeen jàggee texte bi nii parce que Samba Ka li mu wax nii c'est triste mais lu am solo la. maa maanaam gars yi Sambaka Ka ak lu mënti xew sa sawaay loolu moom nekkul raison quoi. danga mus mustan ñam lan mooy bës nag xamoo lan mooy bës lii la Papa Thione doon wax naan siiw du jàmm borom da ngay siiw ci loo xam ne peut-être yow sax bi ngay siiw nekkul yaa ko forcé boo euh, kook kooku noonu damay fàtte nu mu tudd sax euh, fifi fifi drone nga xam ne moom moo bëgg nekk star force yow nag star bi da nga doon def lu naturel ba mu dab la mais nag continuer ci lu naturel loolu képp ku ñëw si yow bëgg yaakaar ne dangaa yor loolu te yoroo ko nga xamal ko ne ko yoruma ko voilà mais mais bul bul bul dugal sa bopp ci loo xam ne après yow yaa ngi nii tey ah léegi ana ñooñ noonu ñooñu taxoon ngay def loolu mais mais li nga wax nii sax maanaam daal du raison daal vraiment xam naa ne nag peut-être moom mën nañ ko xaw a dégg nii mais du raison du raison de ak lu mel ne sàcc nga xam da ngay tëdd ba xaaju gi di nit ñi tëdd nga jug dem si ay këri jàmbur wala ay place jàmbur di ko dajj mooma ah, képp ku am fit boobu après nga ñëw taxaw fi di wax ay pression sociale ah lolu doy na war de en anu tout cas mo ngi non dal ha wax le mo noo ko gisé yene ngi nonu samba ngi nonu mais man personnellement man pour man lolu du raison quoi parce que sa ci timit ci timit nekul lo xam kan lu facile la da ngay jog ni rek dem nga dem di cambrioler ay place jambour di jël fofu ay bagage ay alalu jambour tamit ak yow nii la nit ñi xamee yow na xam naa ne fi nga toll ci réew mi xamoo ko sa xamoo sa tur fu mu toll xamoo bës nañ lañ koy gérer moo tax sax sa bës dafa gaaw a jeex mais en tout cas daal maa leen di xaar si commentaire yi yàlla la yàlla jële fi nga nekk te boo fa jugee nag nga jéem a xool beneen yoon parce que loolu moom doxul doxul de. càcc gu metti goo xamante ni nag doon nañ ko amal ca boutique boobee nekk ca diwaanu Linguère li gën a doy waax ci mbir mi nag mooy kii nga xamante ne moo doon amal bile càcc dañu ko xam lool fii ci diwaanu Sénégal daal koy ràññee nekkul kenn nag ku dul tiktoker bi nga xamante ne moom mooy Sambaka ñu gën ko xam nag ci rang muy moom Sambaka mii la ñu ko nag ci vidéo yi nga xamante ne nag doon na ko faral di def ci tiktok bi moom mi nag nee nañu moo amal bile ñawteef ca dëkk boobee nga xamante ne moom mooy diwaanu Linguère bu ñu sukkandiku sukkandiku ci xibaar yi nga xamante ni nag jot nañu ko nee nañu nag dafa dugg ca boutique ba doon amal ak càcc ca jamono boobee nag caméra de surveillance yi nga xamante ni defoon nañ ko ca bërëb boobee filmer ko muy amal nag biile euh, càcc ca gannaaw ba nag ñoom moom boutique ba taal li nga xamante ne moom mooy seen i de surveillance ak kanamu ko sàmbaka gi nag ni tay yi ca vidéo yooyu ñu daal di koy gis nag ba ñu ko gisee la ko jël nag daal di koy jébbal yoon jamono ji ñuy wax ak yéen nag sàmbaka xamante ni nag daan nay am ca diwaanu euh, Linguère mbir may nag daal di bétti ñëpp fi nga xamante ni moom mooy ci diwaanu Sénégal ndaxte jamono ji ñuy waxe ak yéen nag vidéo yi ñu koy wasaare ci biir réseaux sociaux yi du ñàkk nag dañu am yenn ni xibaar laale nag ak mbiri tiktokeur bi nga xamante ni moom mooy Samba Ka